salaamaaleykum mbokki internet wasaare news yi ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax tey nag ñu ñëwoon ak yéen ci seen revue des titres commencé ko ci las kii di Macky mu ngi évoqué benn gouvernement bu élargi comme ni ñu ko gisee mais waa Benno Bokk Yaakaar leader benn Bokk Yaakaar yi ñu ngi ci conférence euh, bu ñu jógee foofu dañuy dem si waa ONAS fi mu ne pare nañ pour génne quatre-vingts milliards jëmale ko ci ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci mbënn mi. Libération fële ca Blaise Diagne nag benn yaarisi allemand lañ fa jàpp gannaaw ba mu dawee Syrie dem Bissau waroon na jaar senegal pour rëccee fële ca Kenya lañ ko jàpp fële ca nga xamante ni mooy Blaise Diagne mama du Dieng sur la situation du coronavirus zéro malade ci Covid 19 bi fële ca CTE bu Touba. Racine du ba tey ñu ngi ci inondation yi yi nga xam ne moo am biir Dakar gis ngeen ko mbënn mi ba tey ndox maa ngi fi dara jógewu fi ñëpp a ngi ci biir di xuus waaw boo ñu dem ci kii nga xamante ni moo di journaliste Momar Diop nee na Macky sàll mu ngi jéem a yaatal gouvernement bi. l'évidence ki nga xamante ne ni moo di Bougane gee gannaaw ba mu demee seeti ji ñi nga xam ne ñoo sonn ci mbënn mi nee na dina leen jàppale soutenir leen ba ñu mën a dellu seeni kër dellu seeni seeni yitte ci autoroute Ila Touba kii di Abdou Karim sàll ak Cheikh bas nee nañ dinañu njëmbat 24000 euh, garab li nga xamante ne ni moo jëm ci yoonu Ila Touba bi ci autoroute bi. su a fële nga xamante ne ni moo di jam ñaajo 63 milliards moo naaw ci ngelaw li gannaaw bañ defee constat bi gis nañ ne depuis le 24 janvier la fa Macky Sall daal di inauguré benn grande pompe boobu ba tey na wax dëgg yàlla kenn utilisé wu ko dañ ko fa bàyyi ndax kenn mënu faa dem nee nañ dem gore dox moo gën a yomb dem foofu buñ jógee foofu dañuy dem ba xamante ne ni moo di Mbàkke 15 chèvres tuées et 8 personnes blessées dont une femme enceinte mu nekk assaut des abeilles qui ont été nga xew ca commune les échos chef de l'opposition ki nga xam moo di Thierno Bocoum mi ngi demoon mi ngi demoon te point par point kii di Ousmane Sonko ñu dem ci immobilier bu Akon City projet boobu bu bu mag boobu mu fi indi woon le très grand bluff gars yi nee nañ euh, projet bi bluff la ñi naan politique la ñi naan dina am ñi naan du am werante baa ngi noonu.

du chef de l'État nous avons dañoo war a nous a nga xamante ni makissal le Sénégal, ndax sénégalais yi faluñu couple mais président la ñu fal. fële ca les politiciens demandent une nañ fa seeti mu de charme dans les zones inondées. Bataille tey ñu Sud Quotidien gestion des inondations et gouvernance politique le réquisitoire d'Abdoulaye Mbaye Abdoulaye Mbaye nee na fii ñii di waa Sénégal ñaari Macky Sall la ñu am ñaari ñaari kanam la ñu am ñoo ko gisandoo kii nga xamante ne ni ñoo di waa l'OMVS ñu ngi euh, son haut son haut commissaire rassure ñu ngi jéem a rassurer pour li nga xamante ne ni moo jëm ci wàllum débordement du fleuve Sénégal. ñu ci enquête dossier pêche sénégalaise. ñi nga xamante ne ni ñoo di euh, nappkat yi ñu ngi jooy ndax nee nañ fi mu nekk nii jën dafa manqué pêcheurs yi tamit wax dëgg yàlla dañuy dem euh, nappi waaye duñu fa gis dara ndax gaal yu mag yi dañuy ñëw yóbbu lépp duñ leen fa bàyyil dara. fi nga xamante ne nii moo di Touba nee nañ dinañ yokk seeni stratégie ba nga ba ma ba màggal Touba gi jaaroon incha allah ñu mucc si lii nga xamante ne nii moo di Covid 19 bi. exclusive ba tey ñu ngi si Covid 19. Euh, note du club Sénégal émergent qui nga maintenu ni modi Diouf sa jot nañ ko ak lion du mérite euh, le ministre nous devons tous au leadership du président Sall troisième mandat dëgg la wala du dëgg débat la bu ou ubbi après. l'observateur secret de la nouvelle vie de maître Madické Niang ki nga xamante ni moo di maître Madické Niang ñu ngi ñu ngi seet ci biir viom ñu son cabinet d'avocat li nga xam ne ay ak euh, gise bu mu euh, enquête sur le fast track Macky à la recherche d'un slogan perdu Macky Sall mu ngi solution en mais dafa melni affaire yi La tribune

jugee ba tey euh, mu ngi toll ci 23 ans tey la woon anniversaire am comme niñ ko gisee il était une fois da baax toujours dafa baax. voilà ñoo ko gisandoo li la lañ leen indiloon ci seen revue des di leen dox dig daje ci beneen yoon incha allah.